daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax da ngeen am da nga am taw xanaa ci lañ ko may xaas la am ñoom ñun fekk ne ci xas yi xaas la am xaas la am bu wér a wér a wér yoo te ngeen dund ci tàggooyaay rek lañ fa bale xaas xaas ngeen am waxuma tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu su ko defee kon mu mel nii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 mboolem ku di ab julli rek mi ngi la koy laabire gannaaw ba laabire gi tukkee ci yàlla mu jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ moom it dellu di ko laabire waat ñëpp tabarakallahu kon day njëkk julli ci yonent bi nga xam ne laabire gi ci moom la bay ko mu jël turu Muhammad tënkee ko laabire ji sëñ Tuba dafa yéeme boo gisee xasida yi muy Muhammad ni yëpp lenn la ci namm nettali gi muy nettali may ko yàlla defal tënkee ko turu Muhammad da koo neex pourtant mënoon na koo tënkee benn baatu arab nii rek waaw ah, te du tee lam bëgg wax yàlla dan ko ko wax yàlla nam ko waaye nag nettali may yi tënkee ko turu Muhammad da koo neex waaw ah, loolu loolu lu kéemaanal ko bàyyi xelam déet ah, nga xam ne nettali may yi tënkee ko baatu Allah wala Muhammad moom sëñ bi ci boppam loolu ci boppam moom da koo neex moom waaye bu ko neexoon tënkee ko beneen baat wala mu tënkee ko sax baat alquran waaye tënkee ko baatu Muhammad da koo neex. moo tax comme nettali bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko mu tënkee ko Muhammad waaye bala moo commencé nag di laa biire nettali gi dafay julli ci ki nga xam ne moom lañ jëlee nettali gi di yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan salli yàlla nga sax dàkk du julliwoo sallim wa barik te dollik barke ala man ci kaw yonent bi nga xam ne rawaan nettali na rawaan nettali nañu xan hu jëlee ci moom man madumuunu li nga xam ne moom la lamboo xaasil abyaati yi bayit muhammadin tama tënkee ko muhammad sallallahu alayhi wasallam mu yow sunu borom noo ngi lay ñaan yàlla nga sax dàkk di julli di sëlmal te dolli barke ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamee ne solo nañ jëlee ci ay hadis yu bari tabaarakallahu bay yii ma tënkee Muhammad lim làmboo nga xam ne dama ci laabire laabir goo xam ne ci yow la bee ko ñëw ci yonent bi ma di ko laabire mboolem jullit ñëpp tabaarakallahu nettali nañ jëlee ci moom ay hadis yoo xam ne day tegtale ne jullit bi wartu ne war war naa sax ci imaan ak islam ak insaam te noonu la ko Seydina Jibril dikkee woon di ko jàngal ba mu nekk ci saaba yi ci melokaano woo xamee ne du melokaano malaaka ñëw di ko jàngal naan ko ndax xam nga lan mooy iman ak islam ak insaan yëpp. moo tax ma yow sunu borom yàlla na nga sax dàkk di julli te dolli sëlmal dolli barke ci kaw yonent bi nga xamee ne nettil nañ solo nañ jëlee ci moom muy bay yi ma tënkee Muhammad lim làmboo ñi ngi ko solo jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nettali ko te loolu yëpp yàlla ci boppam moo ko ko sant moom it mu nettali ko jullit ñëpp war koo pratiquer te loolu mooy nit fu mu toll war a tëqoog alquran bi yàlla bi di ko jàng su bëggee tedd nge ak yëkkati ko faw cër na galaxira mucc ci bépp lor nay tëqoog alquran di sàkku dégg nga alquran di ko jàng waaye itam nay tëqoog imaan gu dëgër tëqoog islam gu dëgër ci waxtu ne ndax li imaan alquran da ko jàngale waaye islam itam sun borom da ko jàngale suñ borom jàng ci alquran mu ne yéen ñi gëm na ngeen dugg ci islaam na ngeen jàmmoo yéen ñi gëmut ba tey na ngeen gëm womatul islaam nangul lislaam waaye yéen ñu dugg ba noppi na ngeen jàmmoo nekk benn bu leen topp jeeku saytaane yaa ayyuha allazina amanu udxulu fi salmi kaafa wala tattabiu xurwaati saytaan innahu lakum aduwwun mubiin kon yàlla ñi gëm ñëpp sant na leen ñi jàmmoo ndax azal mu muy bàyyi ko ci maanaam salaam rek ndax julit ñi pratique gi ñuy pratique l'islam dañoo soxla maanaam ñi nekk benn jàmmoo yàlla naka noonu la laa biree nit ñëpp ne jaamu leen seen borom kooku amul yéeféer beeg jullit beeg ceem yaa ayyuha naasu ubudu rabbakum kooku mooy kan mu ne allasiina min qablikum dégg nga allasiina xalaqakum wallasiina min qablikum laalakum tattaquna moo leen bind ngeen bàyyi ci suuf ak toxantal mën yi waaye itam moo leen bind bind ñi fi jiitoon ñëpp moo leen bind kon kon tabaarakallaahu mu ne wa nafika sarik lillaahi nus xaka taqut bila furuuk mu ne mudda na nga tàllal bi imaanin gëm yàlla wa nafika ak li nga xam ne moo di sax sax sax dàqal asarik bokkaale lillaahi mu walis yàlla nus xaka sa laabiire bi yow mi may déglu ya moom demir gi taqut su ko defee kon womatees la nga jëm ci yàlla bila furuuk ci lu genn mbañel buy dox sa diggante sa borom mu ne waaw yow mi may déglu bu njëkk bu mu leen njëkk laabiri mu bàyyi ko ci yonent bi mooy na am gëm yàlla gu mat sëkk sa gëm yàlla nag yokk bul bul bañ mukk i wàññeeku ndax gëm yàlla ni muy yokkoo lay wàññoo fasaadahum laa imaanan wa qaalu hasbunallahu wa ni'mal wakiilu waaye nit ki li muy jëf ci lu bon rek imaanam diggan di wàññeeku waaye li muy jëf ci lu baax ak rafetal rek rawatina rafetal digganteem ak jaam ak digganteem ak borom gëm yàllam di gën a dooleeku doyloo borom gëm yàllam di gën a dooleeku dégg nga waaye ni ngay amee gëm yàlla gu mat sëkk ba mu fees sa nun ngay dàqee sa xol bokkaale mu wëlis yàlla waaw mu ne nag kon bayit bi njëkk ñaar la ci jàngal muy imaan na nekk sa xol nga dàq ci bokkaale ndax imaan bu fekkee dëgg la mu nekk ci xolub jaam bi bokkaale du fa nekk du fa am dafa ñëw ngir dàq lépp luy bokkaale ak lu bokkut ci xol loolu la loolu la imaan tudd maanaam lépp lu ko mu tëy la ci yàlla nga dàqal ko ko xam ne dafa jomb ci moom léegi nag kon bayit bi njëkk moo tax mu la mudda na nga tàllal bi imaanin gëm yàlla gu wér mu nekk sa xol wana fi ka ta nga dàq ci sa biir xol asarik bokkaale lillahi mu wëlli si yàlla nusaaka jëlal sa laay biir bii yow laay wax yéen ñi may déglu ak man mii di firi xasida gi mu ni su ko defee tëqut xoma tees la bilaa furóoku ci lu genn xeeti bañ ak bañel maanaam bañel du am sa diggante sa borom sa borom du la sànji nam sànji woon nasaraan ya wala nam ko sànji woon yahuud ya mukk du la ko sànjee ndax ñoom li leen teg loolu yëpp seen diggante seen borom muy imaan goo xam ne dañuy wane ne gëm nañ yonent yàlla Iisaa gëmuñ yonent yi ci des gëm nañ téeram Iisaa ba gëmuñ yonent gëmuñ yi ci des loolu moo ko def ak bokkaale gi nga xam ne moo bëri lool ca seen xol ya moo tax laxu li ñuy wax maanaam makro yàlla sib leen lu ñuy wax maqdub yàlla bañ leen dégg nga lu ñuy wax daalin riir nekk ci ñoom kon nag yow jullit bi sëñ Tuubaa li mu njëkk a jàngal mooy bokkaale fexal dindi ko sa xol iman na ci nekk waaye lépp li bokkaale nang nga ko dàq mu wëlis yàlla la waxoon ca midaadi ba nabastul fira lillahi jalla jalaaluhu bi mat illati am daahoo sansaarus naa dàq naa sànni naa mu wëlis yàlla lépp luñ koy naral di ko ci taqal ci ay doom ak di ko bokkaale te loolu yëpp mustahil la dàq naa ko lillahi muulis yàlla dégg nga lillahi mooy ay maanaam xanillahi maanaam muulis yàlla. ba tey mu lay wax nag yow mbindeef bi mu ne xaawil na ngay sàkku ci jamono ju nekk nasihatal kitaab yi di laahi biiri ci alquran taa leen di aji eh, jàng di lagg loxo jëm ci alquran dégg nga wasabba su ko defee joñal xaan huwalis ko tukuram terelees la xaaliyaa mbir moom ngay aji kawe mu ne foo toll alquran de ko pratiquer te di ci laabire mbindi fi ñi nga tene nang leen ci laabira waaye yow bul saggan bul bokk ci ataamuroon naasi bil biri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna kitaab afalaa taquluuna mel ni sondal buy takk fekk mi ngi lakk boppam mooy di digle jàng leen alquran jàng leen def leen nangam te yow doo ko jàng kon sondal buy lakk boppam nga la ngay digle amul benn njëriñ mu ne su ko defee boo taxu alquran di ko jàng di ci laabire kem sa kattan nee al alquran ci boppam moo lay difandar lal moo lay difandar moo lay difandar moo lay teral nga yëkkati ko cërnu ko alaxira ta alquran ku mu yëkkati nga daal di yëkkati ba ci kaw ñëpp ñëpp gis la. kon nag man mii di firi xasida gi ak yéen ñu koy déglu ak laabire xaawil maa ngi sàkku man Ibrahima xaawil nanga nga sàkku yow may déglu nasihaatal kitaab yi laabire alquran ji nekk ci téer bi li muy laabire yëpp nanga koy sàkku di ko jéem a di ko jéem a xam di ko jéem a xam dégg di ko jéem a xamal ñeneen yor taaliyaan di aji jàng loxo ñeel ko foo toll di yër alquran di setantal ay maxnaam wasabba kon dakkoos wasabba su ko defee joñalees xan wëlis ko yow moom tëquk alquran laabire téere bi nga di ko jël di ko pratiquer di ci jàng di ko jàng ci waxtu ne boo ko mën a jàngal keneen mu gën a baax boo mën a laabire keneen ba gindi ko teg ñoom siraat mu tëq mu gën a baax mu ne su ko defee nag foo toll alquran moo lay difandaral te tukkuram tereles la xaaliyaa mbir mo ngaa ji kawe kon su ko defee alquran ci boppam moo lay teral yow moom di ko jàng di jël ay laabiram ak textiyam di ko appliquer nee na alquran moo lay teral nga yëkkati ko kawe. kon bi mu nekk wax mooy nga am imaan lu ñuy wax bokkaale na dañ sa xol bi ci topp mooy nga tëqu alquran di ko jàng mantu ñàkk boo bëggee yàlla teral nga yëkkati ko cërnu kalaxira mu ne malik nasi ataka xayral xalqi amana bi ma qaada lahoo sol xalqi ne malik na nga moom loo nasi ataka sa laabiri bii kan mu ne xayral xalqi ngën ci mbindeef di sallallahu alayhi wasallam amana ko gëm na am na imaan am islaam am insaan te taxoog alquran lan ko sant yëpp mu di ko def bi ma laaye biir goo xamee ne xaada dana womat loxoo jëmee ci moom sol xalq yàlla muy borom mbindeef yi mu ne na xam ne laa biir ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la tukkee te mooy ki nga xamee ne xoolam imaan rek ca nekk waaye kon laa biire koo xam ne gannaaw ba mu béy ci yonent bi ba tey ki ko appliqué na ko yonent bi daan appliqué dana koo mat jëmee ko ci yàlla muy borom bindee fi moo tax mu ne kon na nga moom loo sa laa biire bii na nga xam ne daal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la bee ko nga ndax moom ku gëmoon la te gëmam dëggu ta wér lool moo tax kon na xam ne laa bi ci yonent bi la bee ko te képp koo xamee ne ba tey laa biir bi jël nga ko na nga xamee ne dana la womat jëmee ci yàlla muy borom bindee fi nam ci womatoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon laabire gi ci yàlla bee ko moo tax sëriñ bi ne ko malik nasihataka xayral xalqi yow yàlla laabire gii nga xam ne yaa ko laabire yonent bi ndax jibril moo ko doon wax yonent bi mu ne nang ko moom la ngën ci mbindeef sallallahu alayhi wasallam maanaam lépp lu nekk ci laabire rek na daje ci yonent bi bu dee gëm yàlla dégg nga dajee na ci yonent bi taqu alquran dajee na ci moom islam gu mat sëkk dajee na ci moom insaan gu mat moo tax ma ne ko yàlla malik moom lool nasiyaataka sa laabire bi xayral xalqi ngeen ci mi def amana ko gëm na bi maa muy laabire boo xamee ne ba tey dégg nga ñëpp soxla nañ ko xaa da dana womat loxo jëmee ci yàlla mi ga xamee ne sool xalqi mooy borom bindee fi yàlla muy borom bindee fi daal ba tey laabire gi képp ku ca ngoy dégg nga tabaarakallahu moomat la jëmee ci yàlla mu ne mu dajawelal na nga tam na li man ñeel képp koo xamee ne amma jublu na sawil islam ñooñ islaam ba bokk ci kuréel ba nang ko tàllal nasihatan laahi biir gi xaw nan mbir moom mu doon ak ndimbal lu tukkee coow bi laa ma ci lul benn ya daange bum ci topp mu ne képp ku dugg ci kuréelu lislaam rek bokk ci lislaam yàlla laa biir gi yàlla nang ko ko defal mu doon ndimbal lu tukkee ci yow ndax ku am imaan am islam am insaan tëqoog alquran la la yàlla sant yëpp nga di ko def kooku ndimbalug yàlla la laa biir kon képp kuy julli rek farata nga war koo xam war koo jëfandikoo muy gëm yàlla ba noppi di pratique lislaam ci texte yu leer naññ lépp looy def rek doo jékki-jékki rek di def waaye da lay wóor ne nii la ko l'islam santaane waaye ihsaan ngay pratiquer mooy di def te yàlla tax dong tabaarakallahu moo tax mu ne kon na tàllal képp koo xam ne bokk na ci ko kuréelu lislaam rek laa bire bii na nga ko tàbbal ci biir xolam su ko defee mu doon ndimbal lu tukkee ci yow rek te benn yaddaange bum ci toftalu ndax nit ki su xamut bii yeddaangeeg yàlla mën na koo daan ci àddina wala ëllëg yomal xiyaam te lëkk yóbbu yëpp mooy ñàkk xam te gëstuwut moo tax mu de mudda na nga tàllal li man ñeel képp koo xam ne am jublu na sawil islam yi ñooñu islam maanaam ku bokk si kuréelu lislaam rek na nga ko tàllal nasiyaatan laahi biir bi su ko defee nag aa aw nan mbir muy ndimbal lu tukkee ci yow bilaa malaam ci lu benn yeddaange di ci toftaloo mu ne daar yi nasiyaatan li xayri si xusoos fa haasi hiya nasaisun nusoos mu ne daar yi sama kër na nga xam ne ku fi ñëw da nga fa fekk na si xatan ak laahi biir li xayri si lu dul yi xusuus yi nga xam ne xusuus lañ tu tuddee muy ay jagle mu ne faxaas yi lii nag xiya moom li tax ma bind ko muy nasa isu nusoos maanaam yax la boo xam ne dañ ko yaxal nusoos mooy loo xam ne bind nañ ko ba noppi kon lu yonent bi wax la ci hadis lu yàlla wax la ba tey muy jullit bu nekk war a am iman ak islam ak ihsan war a taqoog alquran jiñ wàcc ci yonent bi ndax mooy leetar bi nga xamee ne kenn ku nekk war naa xam lu ci nekk wala nga déglu ngay faral di déglu ñi ko xam yàlla wàcc téere bu doy ni alquran xamoo ci benn baat xamoo lu muy firi doo déglu ñu koy firi loolu moom la ñoo tong alquran yàlla ñu ci àll musal sëriñ bi nee na nag ku ñëw sama kër moom da nga ci fekk laabire yu bokkut ak yii ma tudd nii yoo xam ne xusuus la nga xam ne laabire yooyu day tax nit rek gaaw a xam fi muy jaar baam iman ak islam ak ihsaan waaye bokkut ak laabir yooyu bokkut ak imaan ak islam ihsaan waaye lépp dafay nekk rek ci biir yooyu su ko defee nag yi moom yàq la boo xam ne bind nañ ko ba noppi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jàngale moo tax ne daal yi sama kër moom nasihatan ak laay biir la li xëyri si lu bokk nag yi xusoo ci ay jagle faas yi lii nag lu tax ma bind ko xiyee moom lu tax nasaay su nusoo du sama waxi bopp yàq la boo xam ne bu ñu yàqal la bu ñu bind la julli googu moom julloon ci yonent bi allahumma salli la wax ne wa ali na nga julli ci waa yëpp wa taqbal yàlla na nga nangul kulliyata lépp naasimi aji way haasil abyaati yi bayit bi fadlika ci sa ngëneel amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabal aalamiina yow yàlla ñuy borom bindéef yi nang ko defal jasaa'un pay aw faa ga gën a matale ga gën a lëw ga gën a matale mi man mu bokk ci ña nga xamee ne laay juru doo ñoddi dégg nga ilay di jëmee ci man xaw lenn loo xamee ne ak ragal la mu ne yàlla jullit ci waa kër yonent ak saaba yëpp waaye man Serigne Touba mi way bayit yi dama bëgg sama lépp nang ko nangu nanga nga nangu sama lépp te boo koy nangu na nga xool ci sa ngëneel rek yàlla na nga nangu ñaar jëm borom bi defi te nag ma ci defal pay goo xam ne gu mat sëkk la dégg nga mooy jasaawun aw faa mooy fay goo xamee ne yàlla fay na la ba buuñaa la fay gu mat sëkk tabaarakallahu dégg nga mu ne su ko defee nag ma bokk ci ñi nga xamee ne lu ñuy tuddee ak ragal duñ ko def alaxira te mooy ala ina aw allahi la xawfun alayhim wa la hum yahzanun boole ma ci kuréel boobu bismillahi sot na ma sama wax ci tuddu turu buur bi kon bépp mi def ci àdduna rahimi buur bay ajiram ko soob ci àllaaxira allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk di julli wa sallim te salmal wa barik te dolli barke ala sayyidina ci kaw sunu sang bi o mawlana tey sunu kilifa muhammadin muhammadin muhammadin mu ne maa ngi tàmbali ci tur sunu borom yàlla muy xéewalaa kon ñëpp ci àdduna te yaa jiram ko soob ci àllaaxira yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli te salmal te dolli barke ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi du sunu kilifa turam di muhammad sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu kon gis nga ne mu ngi indiwaat genn xasida goo xam ne ba tey da koo tënkee dégg nga man ngeen ne ñetti Muhammad la tudd fii waaye daa mel ni euh, ñaari Muhammad la tënkee xasida ndax boo jëlee mim gu ñàkk madda rasulu hamdi ilahiya muhammadin wasilati man amma xubran ba abil mamati ak dafa xayrul mursalin ahmada kooku benn Muhammad la mim ak madarati ak hamitu ak madda rasulullahi ak maha rasulullahi ak damara man jarabani loolu kon ñaari Muhammad la ñetti Muhammad la la indi fii waaye daa mel ni ñaari Muhammad yi la ko tënkee mu ne madda rasulu li qadimihil jasa sala alayhi qaabilun lii rajasa madda tëbb na madda tàllal na arasul yonent bi li qadimihi ñeel man mii di ko liggéeyal tàllal na ma mooy jox na ma aljasa pay gu mat sëkk sala yàlla julli alayhi ci yonent boobu qaabilun yàlla muy aji nangul lii ñeel ma rajasa xasidi yi ma def ci baxru rajas yëpp dégg nga mooy mustafilun mustafilun mustafilun madda rasulu li qadimihil jasa sala alayhi qaabilun lii rajasa xasidi gi da koo def baxru rajas moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam man mii di ko liggéeyal di xadimaam jox na ma pay gu mat sëkk goo xamee ne amul dara lu ci manqué maa ngi dagaan ci yàlla nag mu julli ci yonent yàlla mi nga xamee ne mooy ki nangu sama xasida gi nga xam ne moom laa def ci ban rajas ak mboolem xasida yi ma def ci ban rajas amdi ilahiya yafuqu adada ka sukurihi wali yaqaadal madada amdi sama cantu xol dégg nga ilahiya ñeel na sama borom yafuqu cant goo xam ne fii dee na ko wax adada ñi di ko lim ka sukuri niki sama cant ci cër naka noonu la mel ba tey amut lim waxaada woo matal na lii ñel ma almadada muy xéewal goo xam ne waxtu ne day dolleeku nee na sama cantu xol daal jébbal naa ko suñu borom goo xamee ne kenn du ko natt maanaam daal am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem sama cantu cër naka noonu am na fu mu tàmbalee mi amul fu mu yem te yàlla waxtu ne daf may tëbb ay xéewalam muy ñëw ci man muhammadun muhammad wasilati mooy sama wasila bi dox sama digganteeg yàlla wa junati mooy sama pakk xanil ahadi wali samay noon wal xanaa ak coona wa jannati waaye mooy sama aljana yonent bi sallallahu alayhi wasallam mii di Muhammad mooy wasila bi dox sama digganteeg saa borom mooy sama pakk bi dox sama digganteeg samay noon ak lépp luy coona bu ma demee ba mucc ji mucc samay noon yonent bi mooy sama pakk bu may aar bu dox sama digganteeg samay noon ak lépp luy coona waaye mooy ki nga xam ne comme aljana ci man tudd aw turam rek tabaarakallahu moo dàq aljana ci man tabaarakallahu bu ma déggee turam même bu ma jaaxle woon sax wala ma tawat ma dégg ku tudd turam rek tene naa ca saasa muhammadun sikruhu unsi wa mafraati wa nuuru qalbi wa ahdaay wa raati yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy lépp borom Tuubaa mu ne man amma kubran ba abil mamati wa bil madarrati ma samati borom Tuubaa nag man koo xamee ne am ma jublu na ma kubran ngir bëgg a xam lépp lu nekk ci man kooku ba adana dellu bil mamati ci fatu wa bil madarrati ànd ak lor ya ma samaati ànd koog ndokk ya mu ne ku ñëw ci man ngir di lu ñit samay mbir bëgg a lépp taman sama lépp kenn xamul ko ku dul yàlla kon ku ñëw ngir bëgg a peeg sama xam-xam mooy li nekk ci man lépp na nga xam ne fi ngay téere ji mooy dé léegi ak loru léegi ak ñi di la ndokk foo toll ñi di la ndokk foo toll ñi di la lor foo toll na nga xam ne ci diggante ndok ak lor rek ci ngay dund. kon nag di lu sama samay mbir kon képp ku ñëw di ma jublu rek na nga xam ne ngir bëgg xam samay mbir bëgg koo peeg ah da nga dellu ci faatu ak loru ak ndokk. ndok mooy nit koo xamee ne masalan dala ëppoon doole di la jaay doole yàlla musal la ci moom ba teg ko natt woo xam ne sax nga mujj yow mi mu doon lor nga mujj léegi di ko ndokk dégg nga loolu mooy ndokk wabil madaraati ma samaati dafa xayrul mursalina ahmadu sala wa sallama alayhi samadu madarati ila siwaaye sarmada wala yuwajihu ilay kamada mu ne dafa joñ na xayrul mursalina ngën ci yonente yi ahmadu te mooy ahmad salaa yàlla na julli wa salaama te sëlmal ci moom yonent boobu kan mooy julli mu ne asamadu yàlla muy kilifa gu ñëpp jëmale aju te jublu ajjëm ci kenn lan la joñ mu ne madarati samag lor ilaa si waaye la joñ mu jëm ci man tasar ma daa faw la ko def te walaa yooju di jëmale mu ko ilee ci man kama daa benn njàqare mu ne yonent bi salaa salaam yi di ahmad di ngën ci mboolem yonent bu yàlla mosu yónni maa ngi dagaan ci yàlla mi samadu mu julli ci moom moom yonent boobu ko joñ na sama lor mu daw jëm ci feneen fu bokkut ak man faw lor dootuma jublu yonent bi moo ko dàq te lu ñuy tuddee njàqare mucc naa ci mooy du jublu mukk di ñëw ci man ndax bu naroon ñëw ci man yonent bi mooy dox sama digganteeg moom muhammadun wasilati wa junnati mu ne amittu man amaata man araada ilma xabiatin qadaan firaadi mu ne amittu sant naa man ka nga xamee ne amaata faat na man képp koo xamee ne araada dafa bëggoon ilma xabiati am xam-xamuk sama ndaxañ teef in xadaa mooy jeex nan mooy faatu nañ rek infiraada li nga xam ne mooy benn par benn nee na sant naa suñu borom mi nga xamee ne képp ku ñëwoon bëgg a xam li nekk ci man te mu doon loo xam ne kenn du ko xam ku man ak yàlla nga ñëw di ko lu ñu te bëgg koo xam nee na ña doon def loolu yëpp duñ ko nettalil kenn parce que ñoom ñëpp yàlla faat lay sant nag moo tax mi ne xamitu sant naa man ka nga xamee ne amaata faat na man araada ki bëggoon a xam ak kum mën a doon rek xel ma xabi ati xam-xamu sama ndaxañteef in xadaa faatu na mooy infiraat benn par benn mooy in xadaa mooy faatu nañu mooy jeex nañ rek infiraada mooy benn benn kenn par kenn. madda rasulullahi lii maa dafaa man lam yuwaafiq nii wasaakan dafaa madda tàllal na rasulullahi yonentub yàlla bi mooy jox na ma rek lii ñeel ma maa loolu dafa xaa dana joñ man lam yuwaafiq nii képp ku dëpp wut ak man wasaaka loolu sax in dafa xaa joñ na dem mu ne yonent bi jox na ma loo xamee ni képp ku nangutu dëpp ak man ak loolu moo lay joñ nga joñox nga joñoxu dem maanaam yonent bi jox na ma loo xam ne moo may dàqal képp ku dëppoo man ku ànd ku àndut ak man képp ku ma bëgg rek dëppoo dëppoo ak man dëppoo ak man yonent bi jox na ma loo xam ne moo lay dàq te nee na sax loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ma dàqal na ma ñu dëppoo ak man ñëpp ñu joñoxu dem maxwan far goo xam ne asaaba daq na ilaa si waaye mu jëm ci kurun man daran bépp lor fa saabaata mu dàqu dem nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam far na ci man dégg nga far goo xamee ne lépp lu doon ay lor goo goo xam ne jubloon na ma rek yonent bi far na ko maanaam dàqu na ko mu jëm ci kurun man ba nëpp mu génn ci man ba set wicc moo tax mu ne maxa far na rasulullah yonent bi yàlla bi maxwan efface goo xamee ne asaaba moo daq ilaa si waaye mu jëm ci kurun man daran lépp lu lor fa saabaata mu dem dal di dàqu ba dem. mu ne dammara man jarrabani al muqarraboon wal xulafaa ul umana al muhasaboon dammara mooy bombartina lañ koy wax wala nga ne alag na dammara moom duñ ko wax lu arab du ko wax lu rut koo xam ne gas nañ ko ba dugal ko ci bàmmeel bi buñ ne dammaroo mooy axlakoo amaatuhoo jàng ci alquran euh, tabarakallahu mu ne dam damdama alayhim rabbuhum bi sanbihim fa sawaaha fala yaqaafu uqbaha bu ñu damara fulaanun damara dumuurun damaaran mooy xallaka fa huwa daamirun xadis indi na ko wa fil xadisu xadisu sarif man yasbiqa tarfuhu dégg nga dégg nga xadis am na fu mu koy indee man yasbiqa tarfuhu istan saanihi faqat damara dégg nga kon bu ñu la damara rëjul mooy alaka mooy alakuna mooy alakuna boo demee ci saaru mel ni sax suratul Anqaaf am na fu mu koy nettali bu ñu nee bu ñu damir al balada abaduhu damir sukaana maanaam bu fekkee ci dëkk lañ ko ab dëkk mooy dëkk ba ràpp na dëkk bi yëpp alal nañ leen moom la suratul anqaaf di jàngale euh, tudamiro kulla shay'in bi amri rabbiha dégg nga boo demee ci suratu ba tey xitaale Muhammad mooy damiral qawma wa alayhim mooy ahlakum mooy fi yàlla waxee ne damira laahu alayhi walil kafirina amsaluha kon buñ na dëmmi rek mooy ko xam ne moom jot naa faatu xëy na bañ tabal ko ci bàmbeel mooy alaku na ci gàttal bañ jot koo tàbbal sax ci bàmmeel ba ndeysaan kon damara bombarti na damara alak na damara faat na man képp koo xam ne jarabani doon na ma jarbu ngir bëgg a xam samay mbir al muqarrabuuna malaaka ya ñu jegal yàlla ña wal xulafaaw ak abubakir ak omar ak usmaan ak aliyu al umana ñadu way wóor al muhasabuuna ñadu ñuñ sellal dégg nga al muhasabuut moy ñoo xam ne ñuñ yar lañ ñuñ sellal lañ mu ne képp koo xam ne dafa ma doon jarbu ngir bëgg xam samay mbir bëgg ma natt ba xam da nga xam ci man dara malaaka yi jege yàlla a ñi siiti ci juróom-ñetti malaaka yi nga xam ne ñoo ne xaras xulafaa'ul umm daal muhaasabun moom xam nañ leen mooy Abubakar Omar ak Ousmane ak Ali nee ku ñëwoon rek ngir bëgg a jarbu sama mbir ngir xam ko dégg nga nee ne yi alag nañ la xulafaaw yi muy Abubakar Omar ak Ousmane ak Ali alak nañ la ñi nga xam ne al umana al muhasabun lañ moo tax damara alak na mooy faat na rek man képp koo xam ne jaraban yi doon na ma jarbu al muqrabuna ñan ñoo ko def mu ne malaaka ya ñu jegal yàlla ña wal xulafa ak abubakarin ak omar ak usman ak ali al umana ña da way wóor ta baax al muhasabuna ñaar ñuñ sellal mooy ñoo xam ne ñu am yar ñu am yar lañ buñ ne muhasab mooy rajulun muxlisun mutahirul axlaax naqiyun min al oyob yi mooy ñu sell te laab jukko ba noppi set ci bépp ayib dégg nga kon kooku mooy almuhasabun ndax Aboubacar noonu la mer Omar noonu la mel Ousmane noonu la mel noonu la mel buñ ne hasibil walada mooy rabbaahu tarbiyatan saalihatan tahara axlaaqu mimmaa ya'ibuha guni gi kat def nañ ko hasib mooy yar nañ ko yar goo xamee ne da ciy jaaree baax ay jukkoom yëpp laab lépp luy ayib nga xam ne dana bayee ko ci waxtu ndawam ndax bu màggee du màggaaleeg ayib yooyu ndax nit bu màggaaleeg ayib rek pour nga dindi ayib ya day jafe lool waaye ayib ya boo ko dindee ci waxtu ndaw rek tabaarakallahu bu màggalee bu màggee yàlla mën na ko defal tawfiq mu doon ko jub te ragal yàlla. xasida gi mu tënkee Muhammad ne madam tidaahul Mustafa liiru toba minhu janiyan wa siwa yaqar taba madda tàllal na imtidaahul Mustafa tagg ka ñu tànn ka mooy jox na lii ñel ma rutubaat tàndar mu ju tooy mi nu gu tukkee ci moom jënd yan boo xam ne ak kottiteef la ab kottiteef mooy loo dañ ko witti mu tooy xep. waxarta ba te nërmeelis na si waaye ku man buñ na xarta ba nag ñi ngi ci namu saraxahu ala xafaahu xam nga xafaa bokkut ak dox mooy ki nga ñëwee gannaaw dóor ko ci dox gi nii waaye bokkut ak ci kanam dok gi ci gannaaw gi nii loolu la ñoo danañ wax ba jublu ci mooy xatton xisaama koo xam ne dangaa dog yax bi ba noppi danañ wax xartaba jublu ci xaddaba guy tekki mer na wala ñuy wax xartaba jublu ci koo xam ne dala noonee noonu ju tar dégg nga moo tax kon mu ne yonent bi sallallahu alayhi maanaam tëb na ma mooy jox na ma tàndarma ju tooy xepp ba noppi nag te neex a witti waaw maanaam te neex a jëfandikoo te a lekk loolu digg mag yonent may gu tukkee ci yonent mu defal ko ko kon ku ko jarut jarut jarut na may ga demee ak nangam xam nga arab yi dañoo bëggoon tàndarma ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga dañuy sax ci hadis yu bëri muy muy digle lu mel ni tàndarma nga xam ne du koor rek dégg nga ba ci jigéen gu ëmb ak yépp dégg nga buy lekk tàndarma gis nga ko yàlla am na nu muy def liir bi ci biir mu yayam dana rafet dana tax yaxam yi dëgër dana gaaw a màgg yooyu yëpp tàndarma bëri lu muy faj ci jigéen gu ëmb waxuma la sa kii woor waxuma la jullit bi rek bëri na li muy defar ci moom njëriñam moom kenn xamu nu mu toll. waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu gënoon a bëgg mën nga ne mooy tàndarma ak saxaaba yi te loolu moom moom lañ daan moom lañ daan def moom lañ daan bay boo dee dina gis nga tàndarma yi tabaarakallaahu ñoom tool yi tàndarma lañ daan lañ daan kii li nga xam ne ñin nii lañ fonke xaal ak i caaju noonu lañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yëpp fonkewoon lu mel ni tàndarma moo tax mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam jox na ma tàndarma ju tooy joo xamee ne jenn yan la jenn yan mooy gis nga sayyidatuna Maryam alayhi salaam bi mu amee doom dégg nga te jigéen bu amee doom ñaareel benn day mar wala mu xiif sunu borom moom la ko joxoon muy tàndarma joo xam ne da tooy rutuban jën yan ñu ne ko fa kulli lekkal ci tàndarma dégg nga fa kulli wasrabi tanga naan waaw. wa qari aynan fa ima tarayna min al basri ahadan fa qulu inni nasatu lirrahmani sawman falan uklima yawma insiyan moo tax ne ma da tàll na imtadaahul Mustafa tagg ka ñu tànn ka moo tàllal moo jox rutaban tàndar mu ju tooy xepp min hu tukkee ci yonentu jenn yan goo xam ne kottiteef la dégg nga waxar bat waxar taba mooy nërmeelis na sama noon si waaye ñi jëm ci ku dul man sama noon yëpp nërmeelis na leen daan leen ñi jëm ci ku dul man moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam jot na suron e samak yoonal fii tawaalif ci tawaalif maha maha mboolem seen maa la nga xamee ni ixtirataan les na ko lii ñeel ma wakaana tamu doolee nekk lii ñeel ma man yàlla mi nga xam ne xam maha nootal na ma samay noonu nee na jot na léegi ma yoonal sumbu ay tawaalif yoo xamee ne li ma ci yàlla li ma yàlla tànn rek lay doon a maanaam jot na daal xaana suran fi tawaalifi maa maxtiira lii wakaana lii man xamaa bu la neexee itam maxaa gi alif gi nga itlaaxal ko def ko maxa rek mu nekk maxya kon xaana jot na suran ay sama tàmbali mooy sama yoonal fi tawaalifi tawaalifi maxamaa ànd ak la nga xamee ne ixtira na ko lii ñeel ma wakaana taw doole nekkal moom yàlla lii man ka nga xam ne te mu yàlla xam a nootal na ma samay noonu maanaam daal léegi na commencé naa yoonal tawaalif ànd ak li ma yàlla tànnal ma sax ci di ko jaamu képp dégg nga yàlla mi nga xam ne waxtu ne daf may nekkal ba noppi nootal ma samay noonu ci biir activité maha rasulullahi xanni nasaba wala ulaaqi man maha an yaxdiba maha farna rasulullahi yunentub yàlla bi anni mu walis ma an nasaba lépp loo xam ne xeetu coono la lépp luy rek yonent bi sallallahu alayhi far na ko ba dindi ko ci man ba mu set wicci ba génn ci man ba dem te dootul dellusiwaat mukk ci man borom Tuubaa wala ulaaqi te duma dajee léeg mukk ak sama noon man yàlla mi nga xam ne maxaa far na ci man an yax di baa may mer nee na yonent bi moom moo dindi ci man coono lépp luy tudd nasab rek muy coono gu tar nga xam ne dana jural borom mucc bokkut ak taxab nasab moo gën a tar taxab taxab mën naa nekk coono yar waaye nasab moom coono ju jéggi dayo la gu tar a tar mu ne yonent bi moo ko dindi ci man mu jeex ci man tàkk te yàlla ba tey far na ci man may mer te dootul ma dajaleeg maanaam may xuloo wala benn may xeex ak sama noon boo xam ne day tax ma jëlee ci ak mer maanaam di wane daal yàlla dindi ci moom ak mer ndax ku yàlla dindi ci moom mer même bu ñu ñëwoon sax di xuloo yow yow doo mer kon yàlla far na ci moom lépp loo xam ne xeeti mer la tabaarakallah waaye yonent bi dindi ci moom ak coono. mu ne madaliyal muxtaaru maali madda bila asan moo tax mu ne madda jox na mooy tàllal na lii ñeel ma al muxtaaru ka ñu tànn ka di yonent bi sallallahu alayhi maa lu mag loo xam ne madda tàllal na ko lii jox ma ko bilaa asanta benn lor àndut ci wala xanan wala coona fam ta daata mu lu ñëw ci man mooy mu tàllu ñëw ci man mu ne yonent bi jox na ma loo xamee ne ba ma koy jox daan ma benn lor du ci topp benn coono du ci top mooy lor jeex na coono jeex na te loole ba ma ko joxee rek la ñëw ca sansa yonent bi jox na ma loo xamee ne ca saasa ba ma koy jox dani ma lor du ci topp jeex na coono du ci topp jeex na te ba ma ko joxee rek la loolee nangoo jëw duha yastajaaba man lii rajasa wa xayruhu qaada wa awsalal jasa duha yee sama ñaan nag man borom tuuba istajaaba nangu na ko man yàlla mi nga xamee ne tabaarakallahu nangul na li ñeexal ma rajasa sama xasida yi ma def ci rajas ci baxru rajas wala man yàlla mi nga xamee ne nga taqadim ko xaada wa matal na lii ñeel ma ci xasida yi ma def ci ban rajas wa matal na ma ci ak payam wa ak yu bokkut ak ban rajas wa awsala te yeggal na ci man li nga xam aljasa mooy paya nee na sunu borom daal mii nangu ñaan nangu na sama ñaan ba noppi mboolem xasida yi ma def ci ban rajas nangu na ko defal ma ci payoor gu màgg waaye ak geneen xasida gu bokk ban rajas wa xayroo tawil banka yëpp mboolem xeeti buxóor yi rek sëñ Tuubaa tëgg na ci aw xasida Babou Radiassi nag da nga fekk ci mbindam yu bari muy wax yalla ni mu ko nangulee xasida yi mu def ci Babou Radiassi waaye yeneen xasida yëpp itam noonu rek la demee dégg nga waaye lim ëpp ci lim bind moom borom Tuubaa mën ngaa wax na rek da koo tëgg ci Babou Radiassi bi muy Moustapha Ayloun Moustapha Ayloun Moustapha Ayloun ci la tëgg xasida yooyu yëpp tabaarakallaahu da ngay nette sax mu ne suñu borom defal na ko ci xasida yi mu def ci Babou Radiassi defal na ko ci ay xar moo tax mu ne du'a yee sama ñaan istajaaba nangu na ko man ka nga xamee na xaada wa matal na lii ñeel ma arajas saa ci rajas yi may def ci xasida yi wa xayruhu ak lu dul rajas yi yeneen xasida yëpp daal di dugg mu yàlla wa matal na ko ci ak pay mooy wa aw salat te yeggale na ci man aljasa li nga xamee ne moo di pay lépp lu ma def ci xëyti ban rajas ak lu du ban rajas mu jublu ci xasida yëpp yàlla yeggale na ci man muy pay ga dégg ndax liggéey yonent bi la ci liggéeyal ak jaamu ci yàlla nee na kon nag wa awsalal jisaa muy payoor gi tabaarakallahu sunu borom yéegal na ko ci moom moo tax man yàlla mi nga xam ne xaada mat na lii jëmee ci ma arajasa yi ma def ci rajas wa xayruhu ak lu bokk rajas wa awsala mooy yeggale na ci arajasa li nga xam ne moo di ak payam mooy jox na ma ko. mu indi waa geneen xasida goo xam ne da koo tënkee Muhammad mu ne bismillah sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi. raxmaani buur bay xewlaa kon bépp mi ndéef ci àdduna arxiimi buur bay aj soob ci àlaxira maa ngi tàmbale ci tur suñu borom yàlla mi xewlaa kon ñëpp ci àdduna yàlla muy aj yërëm ko soob ci àlaxira muhammadun muhammad la tënki xasida gi mu ne maddaliyal mux nii bima astaxni bihi bihi fa xultu nixmal mux nii haajiya fi baadin wa mustakini xat xudeer indal ali bil man ni maha nabiyu an fuaadi xat wax waxwa li xayri al adaasu satni mahaabi bisrin lil jinaani husni kama bihi qabila rabbi wasni daxa lati qaadahu lil muxni sukran yaduumu wa bihi ni coy borom tuba mu ne madda jox na mooy tàllal na lee ñel ma al muxni yàlla muy aji doylu loo ko ko neex fa moom tàllal na ma bi ma loo xamee ne astaxni dana ma doylu loo sëkk bihi ci moom fa xultu wax naa bihi ci mbaaxam ngir sant ko na neex ma amul morom almuxni yàlla muy aji doylu loo ko neex fa moom nee na yàlla muy aji doylu loo ko neex fa moom kooku mooy almuxni buñ al alxaniyu mooy moom dafa doylu ba noppi te soxlaalu daray kenn almuxni nag mooy xool jàmm bu ko neex doylu ko fa moom. nee na jox na ma loo xam ne dana ma doy sëkk ci moom mooy doylu naa ca moom kon almuxni moo ma defal bi ma astaxni bihi mooy doylu ko ko neex fa moom moo tax mu doylu ma ca moom ba duma soxlaal kenn ku dul yàlla est-ce que yàlla moom wax naa ngir bàkk ko ak sant ko ci turam wu seel wii di almuxni moom mi nga xam ne aji doylu loo ko ko ne maa ngi koy sant ci turam boobu di ko ci bàkk samak xaajo fii baadin moo xam yu feeñ la wa mustakin wala yu nëbbu xar xudiyat fajees na leen xendal ali fa yàlla muy aji kawe ji bil man ni ànd ko xéewal ya nee na suñu borom mboolem aajo bu mu am moo xam aajo boo xam ne bu feeñ la wala bu nëbbu la yépp ci am yàlla faj na leen yépp la yàlla faj ànd ko teral ma ay xéewal yoo xam ne du jeex mukk bil man ni ma far na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xan fu aadi mu wëli sama xol mooy mu sori ko ni li nga xamee ne mooy yomba fàtte yaaram yi bu ñu waxee baatam xam nu mooy koo xam ne rax yu xoo daxoo fa naqu sa sakaa uxoo xelaatam dafa feebul te ñawam dafa manki bu naqa binal muallimi mooy rax yu xoo ay is is daraahu raa fiihi dax fan buñ na jàngalekat bi xabina la muy xelaatam dafa feebul dafa lompañ dafa doxadi mooy ko xam na daal buñ ne xabina say a mooy xatnan aw xabanan aw fii mooy nasiyoo mooy koo xam ne daal day yomba fàtte lool ñàkk ñaw lool moom la ñuy wax xam ne yàlla nañ ci yàlla musal kon loolu ci xol lay nekk te yonent bi waxoon nañu ne gàkk-gàkk bi gën bon ci xol mooy fàtte nit koo xam ne loo jàng fàtte ko kon maxaa far na annabi bi xan fu aadi mu wëli sama xol xat nii mooy ñàkk ñaw xat ni di yomba fàtte xat ni xol bu lompoñ lépp loo xamee ne xeeti lëndëm la ci xol rek moo tudd xatnu wax wate moom a soo sab ni borom borom joñ la li xayri mu jëm ti kur man alxeda samay noonu buñ na sab nu mooy dafa xoorama bi dàq na ko sànni ko am lum ko sànni kooku la ñuy wax sab nu tabarakallahu kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom yonent bi ba tey kon defal na ma muy dindi yomba fàtte ak ñàkk ñaw ci sama biir xol ak lëndëm yi ci nekk yépp ba noppi nag joñ na mu jëm ci furun man samay noon yépp yonent bi saasam dàq na leen maa far na annabi yonent bi xan fu aadi mu sëri sama xol xam ni lu ñuy tuddee ñàkk ñaw wax nga moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo sam ni borom joñ la li xëyri mu jëm ci kurun man alheda samay noon maha bi bisirin lil jinaani husni kama bihi qabila rabbi wasni maha faree na bi bisirin ci mbégte lil jinaani bakki rek may dugal jina xus ni sama njàqare xol kama xabila ni ko noonu la nangulee rabbi sama borom bii ci barkeb yonent bi was ni sama xasida yi nga xam ne dama koy màndaxe ba mu yem rokk ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bakki rek may dugal jina ci mbégte la fare njàqare sama xol maanaam mbégte ci la tàbbal sama xol njàqare dàqu ca na ko noonu yàlla moom it nangul na ma sama wëy yi may def yëpp kooku may alwasnu wëy yi nga xam ne da koy wëy muy tolloog ci balaa suwaarut yàlla nangul na ma ko ci barke bi yonent bi kon maxa faree na bi bisrin ci mbégte husni sama njàqare lil jinaan bekk rek may tàbbal jana kama qabila niki noonu la nangulee rabbi sama borom bi ci barke bi yonent was ni sama xasida yi daxa la ci qaadoo lil muxni sukuran ya doomu wa bihi astaxni moo tax mu ne daxa woo na ma si yàlla mi nga xamee ne qaadoo kook dana woomatal lii jamee ci man al muxni moom muy aju doylu loo ku ko neex fa moom sukuraan cant goo xam ne yëdduum day sax faw waas tax ni te dana ma doyluloo bii ca moom yàlla mi nga xamee ne moo di aji doyluloo ku ko neex fa moom nee ne moom ci boppam moo ma moom mi nga xam ne waxtu ne daf may womatal ay xéewalam ak i mayam moo ma woo ngir ma di ko sant sant guy sax ba faw te sant googee saa bu ma koy sant daf may dollil di ma gën a doyluloo ca moom mu tàmbalaa geneen xasida gu tënk gu tudd Muhammad mu ne bismillahi soos na ma sama wax kii tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewlaa kon ñëpp cër na arrahiimi tey aji soob ci àlaxira allahumma yow borom sëli yàlla nga sax dàkk du jul wa salim te sëlmal wa barik ta dolli barke ala sayyidil awwalina ci sangu way njëkk ña wal aaxirin ak way mujj ña mahmudin te mooy Muhammad ne maa ngi tàmbali ci turu sunu borom yàlla muy xéewlaa kon bépp mi def ci àdduna te yaa ji ko soob ci àlaxira yow sunu borom yàlla nga sax dàkk yu jëloo tey sëlmal te dolli barke ci yonent bi nga xam ne mooy sangu way njëkk ña ak way mujj ñëpp kooku turam mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammadun salla alayhi laahu musliman li yabadat olaahu Muhammadun Muhammad salla yàlla julli alayhi ci ma allahu yàlla musliman mbir moom muy aji sëlmal ca moom baddat yàlla mi nga xam ne dana feeñalee lii ci man olaahu kaweeg yonent bi sallallahu salam wasallam nee na yonent yàlla Muhammad maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci moom faw sëlmal ca moom yàlla moomee de kaweeg yonent bi kawe mi ngi ko feeñalee ci man ah wax na dëgg xasida yépp wane huñ luru rek. kaweeg yonent bi salaay salaam da koy teg foo xam ne kenn mosut ko fa teg ci way njëkk ña woy way ñëw ña ak way teew ña xamitu man awlaahu ma awlaahu subhaanahu wa innahu l ilaahu xamitu sant naa man ka nga xamee ne awlaahu jox na ko maa lu màgg loo xamee ne awlaahu jox na ko man ka nga xamee ne awlaahu ming na ko maa lu màgg loo xamee ne awlaahu ming na ko subhaanahu kooku may wax nag mooy tudd na mag sellam wa innahu naku li mbir tey mbir tey mbir al ilaahu muy buur bu yeewee ak jaamu nee maa ngi sant yàlla mi jox yonent bi lu màgg loo xamee ne moom la ko méng jox ko ko yàlla mu nag maa ngi tudd ak sellam di ko bàkk di ko sëri lépp lu yellu ci moom ndax moom moom rek mooy buur boo xam ne mooy ilaahu moo yell moo yeyoo ñi jaamu ko. dégg nga moo tax mu ne amittu danaa sant man yàlla mi xam ne awlaahu moo méng yonent bi maa lu màgg loo xamee ne awlaahu méng na ko. kon nag moom yàlla moom subhaanahu maa ngi koy sori lépp lu yellu ci moom ndax wa innahu naka luy mbir tey mbir moom yàlla al ilaahu buur bu yee ak jàmm